ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu mbokk technicien di jaaw jallo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala ma ñu xéewalal ñaari xéewal ya nga xamante ne saa su ne duñu deñ di ko fàttalanteeg mbokk yi njël benn xéewal yam ñu xéewalal mooy xéewalu jaamu yàlla ci askanu jullit ñi waaye ñaareelu xéewal bam ñu xéewalal mooy xéewalu nelaw mu jagleel ko mboolem mbindaa foni buur yàlla tabaaraka wa taala askanu jullit yamu yenkeewal xéewalu jaamu yàlla bi di julli waxtuy fajar ya jullit ñi di joxe waxtu su néew ci ginnaaw gannaaw bu ñu déggee noddukat bi di yëglu audience bu njëkk bu ñu war a am ak seen boroom ci bés bi mu di leen convoqué ci béréb bu sell joo xamante ne fala malaaka yi di seede képp koo xamante ne teewee nga audience boobu ci waxtu woowu gannaaw bi nga déggee noddkat bi di nodd ne hayya ala salaa kaay ci julli ba leen di jokkale seen diggante ak seen borom hayya ala al kaay leen ci texe bi nga xamante ne du ngeen amee texe ci leen texe bi yàlla defu ko fenn defu ko ci lenn lu dul jokkalante ba ngeen di jokkalante ak moom fala seen texe nekk mu daldi ñu ne assalaatu julli baleen di jokkale seen digganteg seen borom xayrun moo gën minan nawm nelaw bi ngeen di nelaw su ko defee képp ko dem wuyu woote bi nga xamante ne moom la bilal bi woote ci bérëb bu sell boobu di jàkk ji ah yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow remplir nga condition bi nga xamante ne moo tax yàlla bind la ndax loolu lam ñu wax ci alquran ne ñu wama xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni binduma jinne yeg doomu aadama ci lenn lu dut ñu jaamu ma bi maanaa ñu wéttal ma ñu nangul ma ne maay seen borom ma nit ma nangul leen ne ñoom it samay jaam lañu dinaa leen yërëm dinaa leen wuyu dina leen xettali dinaa leen defal sax lu kawe seen jot buur yàlla tabaraka wa lii la warloo ak jaami ba tax na mu nekk euh, première occasion njël ba yàlla xéewalal askanu jullit ni su ko defee loolu mooy xéewal bu njëkk bi nga xamante ne yow jullit bi nii nga wara ubbi sa bés bala yàlla wërsëgal nga nar ci dugg waaye nga duggee kook rencontation bi nga njëkk a ak sa borom audience bu njëkk bi nga xamante ne moom la la buur yàlla ubbil ngir nga def ak moom audience bi ni mel su ko defee ñaareelu xéewal ba nga xamante ne moom la partagé mboolem mbindaafoon yi yem ci nekk ci mooy xéewalu nelaw buur yàlla diñu ko leeralal ci téere bi ci suuratu Ruum mu ne ñu wamin ayatihi bokk na ci kawteefu yàlla ya nekk fa yàlla manaamukum bil leyl nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi kon ñu dégg ci maanaa aaya bi ba léegi ndekete yàlla buur bi tabaraka wa taala moo ñuy nelawloo ci guddi moo ñuy roof oxygène ba nga xamante ne dina wuutek oxygène bam ñuy roof bëccëg kon oxygène guddi nelaw bay dab nit ñi ci guddi loolu oxygène la ba nga xamante ne képp ku ko noy sa yaram day bàyyandeku sa yaram day loof in foog nga dem def nelaw moo tax mu ne ñu wamin ayatihi bokk na ci kawteefu yàlla ya nekk fa moom yàlla manaamukum bi leyl nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi kon nelaw ba baadoolo bi di nelaw kawtiif la ba tukkee ko fa yàlla nelaw ba patron bi di nelaw kawtiif la ba tukkee ko fa yàlla nelaw ba boroom alal bi di nelaw dama ne kawtéef la ba jóge ko fa yàlla mu baaxee ko boroom alal bi jaayoo ko ko jëndu ko waaye nelaw ba faqiir bi di nelaw ki amut nelaw ba muy nelaw kawtéef la ba tukkeekoo fa yàlla yàlla jaayu ko ko jënd ko ci moom waaye kawtéefu yàlla la mu baaxee ko boroom alal bi waaye mu baaxee ko tamit ki amul dara mu baaxee ko ki koy topp te gëm ko waaye mu baaxee ko ki ko toppul te gëmu ko ñoom ñépp a bokk yem ci xéewal boobu di nelaw ki gëm yàlla topp yàlla moo ngi nelaw bay yandoor ki ko gëmul topp ko faalewu ko moo ngi nelaw bay yandoor ndax looloo neex yàlla moo tax mu ne wamin aayaatihi bokk na ci kawtéef ya nekk fa yàlla yàlla manaamukum seeni nelaw ba ngeen di nelaw kañ bi layli ci guddi ñu déggee bi léegi ci maanaa aaya bi guddi dadi kilima boo xamante ni yàlla moo ñuy dottil kawtéef ba nga xamante ni mooy oxygène ba lambok ki ko nooy rek da ngay nelaw par force waaw ku ko weddi yeewal trois heures de matin jàpp quatre heures du matin xool pénc bi nu muy dalee nit ñi dañuy dal anañu ñu ngi seeni dëkkuwaay ki leen fa roof ki leen fa bàyyi ki leen fa dugal yàlla amul police bu leen dugg leen par force amul lañu gis ci biti lu leen di tiital ba tax ñu dugg seen kër yi par force waaye yàlla moo ne bokk na ci samay kaawteef ya nekk fa man yàlla manaamu kom seen nelaw ba léeli ci guddi kon guddi la yàlla di nelawuloo nit ñi guddi la yàlla di roof nit ñi oxygène ba toll ni képp ku ko xeñtu képp ku ko noy par la force nelaw waaw mu bokk ci kawteefu yàlla bi léegi lëndimaayu guddi boo xamante ne ñëppay mànkoo ñu dallu ñëppay mànkoo ñu am istiqraar ñu dal ñëppay mànkoo ñu nekk ci tekkaaral joo xamante ne kenn ku nekk loolu mooy lalay neex loolu mooy lalay gënal xataa moment jooju képp kuy def bruit danga koy def ci anam bi nga xamante ne doo nangu ñeneen yi di ci loru waaw su ko defee mu nekk climat boo xamante ne amul kenn ku ko fi installé amul kenn ku ko fi mun a installé ku buur yàlla tabaaraka wa taala waaw moo tax mu ne bokkoon na ci samay kawtéef yama yore nelaw ba ngeen di nelaw ci ban waxtu ci guddi mu indi tuuru guddi moo tax mu ne bi leyli ci guddi wan nahaar ak ci bëccëg bokk na ci samay kawtéef ma indi leen éclairage bu toll ni bëccëg mu ne fang waaw bëccëg bi limeeru jant beeg climat bi ne fang amul taar projecteur amul taar lumière waaye bëccëg boobu mën na leen fàng bàcceel leen ko kenn ku nekk di si gis kenn ku nekk di si war a mën a yëngatu ci li nga bëgg yëngatu loolu dara taxul ma defal leen bëccëg bi noonu lu dul wabtigaakum min fadlihi wërsëg ba ma leen tasal ci kaw suuf si ngir ngeen dem di ko sàkku di ko fàggu ci bëccëg boole ko éclairage bu leer nañ ah, yàlla nee na inna fi daalika li ma leen joxoñel nii nelaw ba ma leen di nelawloo ci guddi ak climat guddi ci boppam oxygène ba may partager di ko sànni ci jaww ji ngeen di ko noyyi rab yi di ko noy njanaaw yi di ko noyyi tekkaaral ba mbindaaf woni nekkee ah loolu kawteef la ba jóge ko ci man yàlla de waaye bëccëg éclairage ba ma ne tey projecteur bu mag ba tollu ni jant bi ma ne ko tey won leen ko génn leen ko installé leen ko ci pinc bi kenn ku nekk daal di am courage bu tollu ni nga war dem wërsëg bala yàlla tasal ci kaw suuf si yàlla nee na li ma leen joxoñal nii ci li ma leen wax nii mu ngi ci kawtéef ba toll ni ñay dégg la leen alquran di junjul ñoo mën a bénéficié wu la ma leen wax nii waaye ña war a bénéficié wu tamit ci kawtéef ba ma leen wax nii mooy ñoo xamante ne dañuy déglu ci ki ñu wàcceel alquraan di yonentu bi sallallahu alayhi wa kon yonentu boobu ñu wàcceel alquraan balay wax kawteefu yàlla ci seeni nelaw ci guddi yonentu boobu moo ne la ne bu la yàlla delloowee sa ruux la nga war a mën a def mooy santal yàlla buur bi nga xamante ne moo la faat ci nelaw gannaaw si mu delloo la sa ruux ndax moo ne bokk na ci kawtéef ya ma yore nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi ak bëccëg bi nga xamante ne ca ngeen di faggu wërsëg ba ma leen tasal ci kaw suuf waaye loolu yëpp kawtéef ba ca nekk mooy ñi nangoo déglu la leen alquran di wax ak la leen yonent bi di wax sallallahu alayhi wa kon la ñu bi di wax mooy képp ku yàlla wërsëgal ba nga nelaw ci guddi boo yeewoo nanga ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama ma amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moo ñu faat ci nelaw gannaaw si mu delloo ñu suñu ruux te si moom yàlla lañu dellu beneen aaya di aaya ba nekk ci suratul zumar ci fa yàlla di baaxe yenentu bi ci suñu téere bu mag bi ngir yow jullit bi nga war a xam ne buur yàlla moo am sañ-sañ ak kàttan ju toll ni lam la bëgg wax ni amul kenn ki ko mën a def kulut moom ba tax na mu ne la ci saar bi di suratul zumar ci aaya ba ñu bëgg jàng si nii mu ne ñu allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawt fa yumsiku allati qada alayha al mawt wa yursilu al uxra ila ajalin musamma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun buur yàlla tabaraka wa taala ne ñu allahu yàlla buur bi leen bind moom leen mooy buur bi nga xamante ne yatawaffal anfusa mooy faat bakken yi xiina mawtiha jamono bu bakken yi yëpp ba ñuy faat ñuy dee dee bu ndaw di nelaw yàlla ne wallati lam tamut fi manaamiha bakken joo xamante ne roofuma ko ngelaw nelaw bu xóot ngelaw nelaw bi ma ko roof ngelaw bu yemambaaye la nelaw bu yemambaaye la nelaw boo xamante ne day jayaxu waaw yàlla mooy roof bakken yi dee ndaw bu tollu ni nelaw bi léegi yàlla mooy roof bakken yi nelaw bu digg doomu ju mel ni jayaxu waaye yàlla nee na fa yumsiku lleti qada aleyha mawt yàlla mooy faat muy tii fa moom bakken ji nga xamante ne dogal na ci moom dee dëggantaan waaw bi léegi ñetteelu bakken bi nag la ñu a wax ni muy jëflanteeg moom mu ne ñu wa yursilul oxra ila ajalin musamma beneen ñetteelu bakken bi nga xamante ne soxlawu ko dig ba ma dëxalanteeg moom jotagul mu daldi di delloo bakkan jooju ci jëmm ba mu bàyyee ko bi keroog appam di jot yàlla ne nag ñetti tegtal yamaleen tegtal ni kawtéef ba ci nekk kenn du ko mën a jëfandikoo lu dul ki yore xelam di xelaat kawtéef ba tukki faman yàlla te kawtéef jooju noonu nag lala ci yenentu bi ne nelaw jooju boo ko xeeb de kado bu mag bala yàlla jox la kon boo ci noppee nga bokk ci ñi yàlla musal ci jayaxu bi nga xamante ne doo nelaw doo ximmale ko mu muccal la ci ñi nga xamante ne jàppul seen bakkan faatut seen bakkan dee dëggantaan ba la delloo sa bakkan kon yow mi yàlla delloo sa bakkan li la yonent bi sant mooy nanga tudd callaange yàlla nanga sant buur yàlla ci cant yu kawe yi nga xamante ne moom la yelloo ba tax na nga war a wax alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yi ñeen nañu yàlla buur bi nga xamante ne ahyaana moo ma dundal baada ma amaatana gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw après mu deloo ma sama ruux wa ilayhi nusuur bés bu ma xale ko dund àddina si ci moom yàlla dong mooy doon sama dellukaay bi nga xamante ne fa lay dellu moo tax nga dégg mbokk jullit ñi askanu jullit ñi ki ci faatu ñu ne jébbal nañ ko boroomam duñ ne jébbal nañ ko fulaan duñ ne jébbal nañ ko diw duñ ne jébbal nañ ko ki ko doon taxawee nii wala ki ko doon jëndal garab ak wala ki ko doon ñaanal wala ki ko doon taxaw lii déedéet waaw ku doon boo génnee ci dundu àddina bu sa àpp jotee lañ la naan ci moom lañ la jébbal wala fa moom lañ la jébbal du kenn ku dut yàlla moo tax ngay dégg ne ñu ne dinañ ko jébbal boroomam waxtu yi sangam ci béréb sangam comme niñ ko déggee ñu di ko wax su ko defee kon ndegem fa yàlla mooy doon dellukaay bu mujj bu nang ko waajalal sa bopp psychologiquement moralement techniquement ba tax na moom dong moo fi war a nekk di la nga war a jaam wa taala yàlla ñu yàlla yërëm ña jiitu yàlla leen yàlla yërëm at bu bees ba ñu dugg ni yàlla ñu ko yàlla defal atum naataange ndoxu taw ba jot a wàcc tamit yal na ko buur yàlla def ndoxum taw bu ànd ak barke mu bañ doon ndoxum taw bañ ñu lor ba tax na euh, ñu fas yéene wéyandiki yéen ci xéwal bu mag ba ñu yàlla wàccel di ndoxu taw ba nga xamante ne moom la béykat bi di xaar moom la njanaaw bi di xaar moom la bayima yi di xaar kon yow béykat bi yàlla ne na nga xool la nga xamante ne mooy doon sa dund bi ngay jëfandikoo yàlla nee na man yàlla may kii sóob ndox ci suuf su wow koŋ suuf su dee thumma saqaqna al arda saqa ñu daldi di nandal suuf si nandaleen bi nga xamante ne day nooy népp ba tax na loo fa ji mu meññ loo fa jëf mu sax yàlla ne man mi maa koy saxal fa ambat naa fiiha habban wa inaban wa gadba wa zaytuunan wa naxlan wa xadaa'ika gulban wa faakihatan wa abban yàlla ne limal limal ni yëpp xeetu meññeef la loo xamante ni yow doomu aadama bi yaa moom ndax yow laa ko jagleel waaye nag mu teg si ne mataan lakum yóbbal la njëriñ la li nga xamante ni yéen a moom waaye nag wali ani amikum seen jur yi leen di taxawee di leen jàppandalal ba bi jaar yoon bokk nañ ci de ñoom it ñoo bokk ak yéen ci loole la jur bi moom mooy ngooñ la jur bi moom mooy la nga dul jëfandikoo yow doomu aadama kon ngooñ ba jur bi moom nanka ka jox boo ko dul jox jaay ko nga jindi ko aliment jox ko ko mu lekk ko moo gën muy dem di dugg ci toolu béykat waaw muy dem di dugg ci toolu béykat bi su ko defee coow li jib diggante sàmmkat ak beykat te moo ne boo jàppee si jur nga yeewu leen la yàlla ne loolu nga moom jël nga ko la yàlla ne loolu la jur bi moom jox nga ko ko na jur bi di du taxawaalu bay dugg ci toolu jàmbur ba vert ndax jur bi moom waaw euh, meññeef bu verte ñax bu verte ñoo bokk ci moom moom ràññee wut loolu ndax amul xel bay ka yàlla jox muy am ràññeetle mboq bu verte gerte bu verte ak ñax bu verte moom ñax bu verte daal couleur bu verte la ko jàppe mu doon la mu war a dundee moo ne bu fekkente ne jël nga la yàlla ne mata an lakum wala an amikum la nga moom la yàlla ne loolu nga moom muy juróom-ñeent mbir fukkeelu mbir bi yàlla ne jur bi moo ko moom neuf produits la la yàlla jox ne la yow yaa ko moom yow doomu aadama waaw dixième bi moo ne la yow yaa ko moom jël ko nga jox ko jur bi neuf produits yàlla ne yaa ko moom dixième bi jur bi moo ko moom jëlal la jur bi moom nga jox ko waaye nga jël la jur bi moom jëfandikoo ko jur bi di taxawaalu ba muy dem dugg ci toolu nit ñi muy yàq seen tool wala muy lekk seen tool coow li ne kur kon yow borom jur bi yaa defut la la yàlla wax waaw ah, yàlla nee na nag la jur bi moom boo ko ko joxul nga jël ko moomale ko sa bopp nga jël ko jaay ko jël xaalis bi lekk ko jur bi muy dem yàq toolu jàmbur yi yàlla nee na ma lay jox avertissement na nga ragal bés bi nga xamante ne fa isa jaati saaxa bés bu xaacukat bi di xaacu bés boobu bés bu raglu boobu di yowmal qiyaam nga xamante ne bokk na ci raglu bés bi yowma yafirul mar'u min axiih nga gis nit ki muy daw mboqam bés boobu yow borom jur bi dinga daw borom tool bala nara a siin ci mbooloo bi mu ne la hee yow ca àddina yaa bàyyi say jur ñuy yàq sama tool tey fay ma sama yiw foo koy jëlee xaalis amut jur bi du la njariñ dara di ko njariñ dara say tiyaabo la ñuy jël di ko xëpp ci tiyaaboom ñu jël bàkkaaram di ko xëpp say bàkkaar say tiyaabo bu jeexee te la nga war a fay jeexul ñu jël bàkkaaram yëpp xëpp la ko nga taq rib ak bàkkaar bu duwutoon yërmande yàlla ñu yeewu la ba nga ne ŋott ñu daal di la tàbbil ci mbugalu yàlla lu la ko yóbbee parce que lala alquran doon jox comme avertissement nga faalewul dégluwuloo ko jànguloo ko buñ koy wax doo ko déglu buñ koy wax doo ko dégg nga nara a dund la neex ak nu mu la neexee voilà résultat baa ngi ni keroog yàlla ne bés penc mooy bés bi nga xamante ne yow yawma firul mar'u min axii keroog bés la ba nga xamante nit ku nekk di nga daw sa mbokk waaw wa ummihi wa abi di nga gis kuy daw yaayam bi ko jur nga gis nit kuy daw baayam ba ko jur parce que day ragal ñu ne ko hé fay ma àq bi nga xamante ne ameel nga ñu ko te keroog fu mu koy fay kon rafetalal jëmale ko say ñaari waajur moo xam ñu ngi dund moo xam dunduñu bu ñuy dund am nga occasion rafetal jëmale ko si ñoom ñaar bu dee dunduñu tamit ah am nga occasion rafetal ko si ñoom ñaar ci naka dee leen génneel sarax del sant nit ñuy jàng alquran ñu dila ñaanalal sey ñaari wuyjur saqal sarax wa illa nga jege nitu diine nitu alquran ñu di la ñaanalal yàlla say ñaari wuyjur waaw yàlla ne wa saahibatihi wa bani keroog bés pénc taraayu bés pénc dina tollu tolluwaay bi nga xamante jikkër dina daw boroom kër dina daw soxnaam waaw ndax soxna si dina la ne hey yow sama boroom kër fay ma àq boo xamante ne ameel nga ma ko waaye nag wa banii di nga gis kilifa bay daw njabootam parce que daa bañ njabootam seen ko ñi ne ko yow suñu wuyjur feeñu ak ya nga ak ñun yàlla ne li kulli mri'in minhum yawma izin sha'nun yughni kenn ku nekk ci nit ñi keroog bés pénc problème bi nga gàlloo doy na la sëkk sëkk sëkk sëkk ngay tal leneen yàlla buur bi tabaaraka wa taala bés boobu nit ñi dinañu doy doyal sëkk ak problème ba ñu nekkee moo ne yàlla problème ba ñu nekkee mooy ban problème buur yàlla nee na keroog ndax nit ñi kenn ku nekk sa problème doy na la sëkk bëgguloo beneen problème ñëw yokku ci sa kaw problème moo tax mu ne li kulli mri'in kenn ku nekk ci nit ñi minhum ci ñoom yawma izin keroog bés penc sha'nun yughnihi sa problème sa yittewu bopp doy na la sëkk sëkk sëkk yàlla nee na nag keroog su boobaa ma daal di andi distinction ràññetle ci ñu texe ak ñu texe di yàlla ne keroog ngay gis wujuhun yawma izin musfira daahikatun mustabsira waaw keroog ngay gis ay xarkanam yu leer xarkanam yu belli xarkanam yuy naat xarkanam yoo xamante ni képp ku leen gis di xam ne ñii ah yàlla am na lu mu dexalanteeg ñoom waaye ñun nit yaa ngi jaaxle seen xarkanam yaa ngi mbooyo ñii seen xar kenn mënu kaa xool ah mais ñii seen xarkanam kanam belli rafet nice ah ñii de lu xew yàlla nee na ñii ñoom laa préparé jox leen màndargay texe yàlla yamu ci mu ne daahikatun mustabsira foo leen gis ñu ngi muñ ñu ngi am mbégte parce que xam nañ ne seen borom dina leen tàbbil ci kuréel ñetti xee waaye nag ah am na yeneen xarkanam yi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala nee na wa wujuhun yawma izin musfira yàlla nee na nag keroog ngay gis ay xar kanam yi nga xamante ne xar yu lëndëm xarkanam yu raglu xar yu ñaaw ñàng aw mu ne wa wujuhun yawma may alayha ghabara nee na keroog ngay gis xar kanam yi nga xamante ne dañoo ñaaw dañoo taq poussière xar kanam yu naqaree xool taq poussière joo xamante ne kenn xamut nu mu mel waaw tarhaquha qatara xar kanam yu nga xamante ne kenn mënul leen xool ndax mandargay texe di ñoo nekk ci xar kanam yooyu yàlla ne yonent bi boo xamut ñu ñooy ñan ñoo ñu ñooy ulaika humul kafaratul fajara ñooñu ñooy ña nga xamante ne dañoo weddi yàlla te dañoo fittirlu xamuñu fu ñuy teg seen tànk ñu nekk ci àddina si di topp seen bànneexu bakken ñooñu ñoy méngoo xarkanam yu ñàng yooyu kon képp koo xamante ne bëgguloo bokk ci xar kanam yu ñàng yooyu kon day moytandiku fii ci àddina la tax ngay daw nit ki keroog bés penc mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegsi fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu ñaan yàlla suñu boroom at bu bees bu ñu nekk nii yan ñu yàlla nangul yal na doon atum naataange yan na doon atum bànneex yan fi yàlla dottil xéwal nasaluka yaa allah an taxfada bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan allahuma aminna fi awtaanina waslih aimmatana wulata umurina allahuma ya rabbi nasaluka mujibaati rahmatik wa gazaima magfiratik wa salaamata min kulli ismi ganimata min kulli bir wal fawza bil janna wa najata min an naar dañu war a jébbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasaraan ñu ngi nii taxaw ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alcadim wa nafacani allahu wa iyaakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasmacuun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu